ndax nee naa sëñ bi bu ñu ko talee xam-xam lay wax wàllum noob ak faru rab yooyu yëpp macha allah jàmbaar la ci saam laa ci àndal moo ne ci micro bi ba tey ay saa laa ci àndal saa su nekk ayaa ngeen ciy ànd moo ne ci waxukaay bi dama koy nuyu sëriñ saaxu alxuraan après ñu woyee li nga xamante ne mooy waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu rabbi asrah li sadri wa yassir li amri waxalul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wal xaytu alayka mahabatan minni wal tasrif salaatu li saaba anaali wa ableel hijaaba asalaamaaleykum wa rahmatullahi waa réew mi waa Dakar people ñu ngi leen di nuyu bu baax ak waa bitim réew di leen siyaare bu baax a baax. Mm-hmm. macha allah macha allah noonu la nuyoo moom Serigne Sakho alxuraan ay ci sëñ bi dañu dugg ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi ndax nee naa sa émission ñëpp dañ koy yàkkamti ndax xam-xam ngay wax waaye nag wax dëgg yàlla seet ngay def ay ci sëñ bi boo ñu doon wax tey seet lan nga ñuy wax. seet ba ma la ko doon wax dama lay wax ne la seet juróom-ñaari façon seet yu bokkul moom mm-hmm. juróom-ñaari seet yu bokkul moo am mm-hmm. am na seet goo xamante ne bii moo gën a siiw muy seetu ramli ñu bëri ci la ñuy seete xam ngeen ne yonentu yàlla Idrissa sax ba seetkat yi dajaloo juróom fukki seet kenn ku ne nga génne suutur muy Idrissa ci lañ xam ne ki ki war a doon ab yonent kat Idrissa la tudd am na seet goo xamante ne bii mi ngi ñetti baaram yi tàllal bu fekkente ne tàllal nga ko bii bii bii buñ seetee dañ xam li nga toll li nga paase ak liy bëgg ñëw ci yow am na ci seet goo xamante ni bii mooy seetu ndox gi mag ñi daan nañ ko seetee ñu koy wax seetu seer ñangi nga xamante ne bi bu ñu ko seetee lépp lu nekk ci dañ la koy wax am na seet goo xamante ne bi mooy seetu kaayal bi mm-hmm. waaye seet dafa bari façon ndax am na seet yoo xam ne danaa la ku ñuul ki ak xees ki mm-hmm. man nag ni may seete mooy képp koo xam ne wax nga ma sa turu ndey mm-hmm. ak at yi nga am ak ni nga tudd incha allah lépp lu nekk ci danaa la ko wax li nga toll li nga paase ak lii bëgg ñëw ci yaw mm-hmm. seet moom yàlla may nañu ci baax a baax. Mm-hmm. xam naa ne daal néew ma amu ci awma ci morom waaye bu fekkee am naa ko ci bëriwul. Mm-hmm. seet moom bu ma la seetalee. li nekk ci yow lépp naa la ko wax li nga toll li nga paase ak lii bëgg a ñëw ci yow. sarax ba war a génn des na ko wax. su dama laa seetal sax nit liggéey la. dama naa la diwale liggéey. mi ngi liggéey ci bis sàngam heure sàngam waxtu sàngam. yàlla xam na ko. moom. néew ma amu ci awma ci morom waaye bëriwul de bu am naa ko ci bëriwul. ndax yàlla may nañu ci baax a baax xam nañ ko daal xam nañ ko bu baax a baax nekkatul lu ñu làmbatu waaw juróom-ñaari seet yëpp xam nañ ko mhm. waaw ba tey dañuy continuer ci li nga xamante ne mooy seet bi seetu juróom-ñaari na na na ko koy koy waaw loolu lu ñuy jàng la rek mu ngi mel ni tey sa micro bi nga téye rek xam nga nit ki lu mu yàgg rek mhm. dana ca dana ko xam waaw nit ki lépp lu mu yàgg rek mu mhm. yàggee dana ko xam ñun nag dañ ko danoo danoo danoo jaral ñu jàng ko xam ko bu baax a baax nekkoon ca daara ja jàng alquranul karim bind ay kaamil jóge fa nag gëstu lasraar dugg ci réew mi ak li war réew mi mhm. jàng xam-xam yépp mhm. door a toog mhm. nee naa la fii nga ma fekk rek ba ma fi dalee wàcc ak léegi yaakaar naa fi 2011 laa fi njëkk wàcc boobaag léegi xam naa war naa mat ay at kon xam nga ne lu yàgg rek la nit nag lépp lu muy def na fexe ba xam ko rek waaw su fekkonte ne nit ñi daal kenn ku ne la nga def xam nga ko réew mi moom du am benn jaxasoo waaw man daal maa ngi digal ñëpp ak bépp sëriñ ak képp ku mën a doon la ngay yëngu na nga fexe ba xam ko maîtriser ko mm-hmm. waaw boo ko xamante du yàgg mm-hmm. waaye seet daal moom mm-hmm. yàlla may nañ ci baax a baax juróom-ñaari seet yëpp noonu xam nañ ko ni ñu mënee tere bi lañ mënee tere seet waaw sëñ bi ñu nekk bitim réew bu ñu doon seetlu tey moom tey bu ñu doon seetlu maanaam dañuy wax seen tur ak seen turu yaay ak at am su fekkente ne waxaal nga ma ko whatsapp wala nga woo bañ waxtaan ci ba déggoo bu soobee yàlla incha allah rabbi lépp lu nekk ci danaa la ko wax bépp gàllankoor bi war a a fang bu ñaan da koy fang dañ la ko wax te ñaan mën naa fang lu ne sa tur at yi nga am ak sa turu ndey waxuma nag tur woo xamante ne dañ la koy woowee tur wi nga tudd dëgg-dëgg nga xam ne tur woowu sa baay ci la la reel am xar tur woowu nga may wax wax ma waaw wax ma at yi nga am mhm. su fekkente at wi ñu def ci carte d'identité bi mën nañ man na ko cee seet mhm. ak turu yaayam mhm. waaw sëñ bi ku ne seex nay muslaay wala kaaraange tey boo ñu doon wax tey muslaay euh, wala kaaraange lan nga ñëw waaw kaaraange day lu am solo la te mat te lu mat di def la mhm. ndax xam nga ne bu fekkee da nekk foo xam ne ñiy yàqale dafa bari ñuy soxor bari ñiy bëgg nga gàllankooru bari wax dëgg yàlla war nga wut kaaraange man nag kaaraange gi ma ci liggéey maa ngi koy liggéey ci deretu nagu dëj ba ko sangoo juróom-ñaar fukki juróom fukki juróom-ñaar fukki yoon juróom-ñaar yoon kaaraange gi may liggéey ba ko sangoo juróom-ñaari yoon ñu ngi koy liggéey ci deru na ko dëj kuy sunguf kuy reen kuy xaatim dootu mën ceew dara insha allahu rabbi kaaraange gi may liggéey juróom-ñaari fan boo ko sangoo ñu ngi koy liggéey ci deretu nagu deretu nagu dëj deretu nagu dëj ku la liggéey ku la liggéey faatu nag boo xam dañu ko rey cib dëj xam nga koy booleel deret ji sangoo ku la liggéey dana faatu maa la wax lii te bu la neexee lépp lu la soo fit may defal lépp loo xamante ne jógut sans borom fi la lay bàyyi waaw kaaraange kay moom yàlla may nañu ci bu baax a baax te ah kaaraange nag dafa jar di def nit ku jóg rek war ngaa fexe ba jéem a aaru am na ñoo xamante ne bi tey jii boo boo doon tabax kese ñu tudd sa tabax rek mën ngaa yàqule waaw kon nag nit ku ci nekk war ngaa jéem a aaru di ñaanlu ndax ñaan mooy ngànnaal jullit buñ ko sabental buñ ko sobante nañ xam ñaan mooy lan mhm. adduwaawu silaalu mumin mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan mooy nganal jullit mhm. adduhooni astajib lakum yàlla ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma doon leen kon nag kenn ku ne fa fa nga ko war a jaar rek na nga ko fay jaar ab jullit day ñaan lu tey ñaan tey ñaan lu ci alquran maa fara naa fi kitaab min seen téere bi bay bayiwu dara waaw ay ca am na solo bu buñ jógee ci li nga xamante ne mooy kaaraange dañuy ñëw ci faru rab waaw faru rab day bari na góor ñu mu yàqal ñu bari as ak ndaw su faru rab bari na jigéen ñu mu yàqal ñu bari ndawus rab bari na góor ñu mu yàqal ñu bari góor ñi gis ñuy mballu da fooy seen awra ñooñu ndawus rab lañ amee ak di gént di sëy jigéen ñi nga xamante ni seen xol day tàng ku leen ngoro tey bu subaa doo delsi ñooñu ñu ci ëpp faru rab lañ amee bari na jigéen ñoom dana jekk mel nañ war a mel loolu macha allah waaye ku leen bëgg tey bu subaa doo leen bëgg ñooñu nag li leen jàpp mooy ku ne xamante ne bii faru rab lañ amee yooyu jigéen mm-hmm. ñooñu nag war na sa cee jóg mm-hmm. bari na nag nu muy dugg nit mooy ñi faral di sollu gàtt ak ñi dox doxu timis mm-hmm. ak ñi def bopp neen waaw loolu daal ñooñu daal xam naa ne ñoom la gën a yeb te ni la góor di gise bëgg la noonu la rab di gise bëgg la te rab ñoo ëpp ñoo ëpp ñoo ëpp ñoo ëpp nit ñi hmm? bu xasee su xasee séegee yow yow rek sayee bari na ñoo xamante dañuy sëy ay ati at mënuñu am doom ñooñu rab a di téye ñi toog lu yàgg amuñu ëpp far rab la ñuy boo leen xooloon ba ci biir tey jii seen xol day tàng mën nga leen di bëgg sax tey seet si leen nga ñëw di waxtaan ak ñoom ñu mel ni koo xam ne mosul ñu laa xam waaw wala nga dem wax ba ne damay waxtaan ak say mbokk doo xam lu looy lu looy téye ba dootoo mën a ñëw mm-hmm. boo booy rab bu soxor bi am na rab damay dafa am juróom-ñaari degré yu bokkul mm-hmm. am na ci rab yoo xamante ni bi tey jii duñ la yàqal waaye duñ la jariñ am na joo yoo xam dañ lay jariñ waaye duñ la yàqal mm-hmm. waaye yi ci ëpp nag dañ lay yàqal ayca am na solo macha allah di leen fàttali rek ñu ngi fi nga xamante ne mooy are bay faal seet si Serigne Sakho alxuraan muy jàmbaar ci wàllum ñaan di jàmbaar ci wàllum seet euh, comme li ñu wax rek nit ñi moom émission dañ koy yàkkamti ndax xam-xam lay joxe waaye xam-xam lay wane sëñ bi euh, bu jógee ci la ñëw ci li nga xam ne wàllum nopp nopp moom jàmbaar la ci macha waaw nopp de moom yàlla na may nañu ci képp koo xamante ni bi daal dañu ciy jëflante mm-hmm. bu ñu xasee xam sa tur mm-hmm. ak turu ki ngay nopp ak sa turu yaay yow koy nopp mm-hmm. incha allah bi bu ñu la ko noobalee dana la tapp topp ni xar mu gis borom ba mm. dana la topp ni xar mu gis borom ba kenn mënu ci dara mm. loo ko sant dana ko def loo ko tere dana ko bàyyi mm. sama mbokki sëriñ si maa ngi leen di laabire tuuti mm-hmm. xam dañuy noob noob goo xam dañu koy lekk dañu koy bàyyi ndax noob goo xam da nga koy lekk mbaa nga koy naan mm-hmm. dana waral métitu biir te noob bu fanaanee mm-hmm. mën naa mën naa rey mën naa rey ki ngay noob moo tax noobit jar nay bàyyi xel waaye jar nay jaar ca yoon wa waaw man nag noobu kànnaar gi lay liggéey incha allah rabi noob gi ngay gis kànnaar gi bii ngay gis nii bu ñu la ko liggéeylee ba dugal ci turam ak sa tur ak sa tur yaay nga wax turam ñetti yoon tufli ci wax sa tur ñetti yoon tufli ci tëj kànnaar bi denc caabi ji mbaa nga sànni ko géej incha allah rabi dana la topp ni xar mu gis borom bu la mere woon sax bu ko woo téléphone boo ko wut sax dana la woo bu doon koo xamante ni bi sa soxna la daa fay sax jërul woo téléphone jërul jëli da nga ko gis mu yéen waat ay bagages am ñëw ci kër gi yàlla xam na ko mm-hmm. waaw. noob gi mooy noobu bi nga xamante ne bii bés boo ko amoon tey jii ba tofle ci turam ñetti yoon ak sa tur ñetti yoon mhm. sa ya seen diggante comme ndox ak suukar mhm. kenn mënu cee yàq dara dara dara dara te dana la topp ni xar ma gis borom mhm. bu doon koo ba bolokale whatsapp sax wala du la du la jël téléphone boo amee nopp gi ci kàttanu yàlla ko wóor sax dan la woo waaw mais sëñ bi kan moo war a nopp ku jëkkër ak jabar war a noobante wala waaw jëkkër ak jabar na ñoo noobante même ko boo bëggee euh, as ndaw sax mu bëgg la war nga cee def noob ndax noob day tax mu gën laa bëgg gën laa jublu rek te te lu baax nag du doy mm-hmm. lu baax du doy mm-hmm. moo tax tey jii ki nga xamante ne bi dafa am ku mu bëgg mu dem ba ci biir mu bëgg koo war mm-hmm. kooku war na koo nopp ki nga xam dafa bëgg ko lool te soxna si di ko wan ginnaaw kooku war na koo nopp ngir mu ngir mu gën a mën a dëgër ki nga xamante dafa am jëkkëram tamit te jëkkër ji na ma yàlla baal di dem ak dikk ak du def yi nag sunu noonu kook war na koo noob mu yem ci moom ndax ëllëgay tax waaw ayca am na solo buñ jógee ci noob dañuy ñëw ci li xam mooy bayre place waaw bayre place moom liñ ci liggéey ci nu yàlla ñeenti xibla yi boo ko xasi am képp koy jaay li ngay jaay bala moo jaay da ngaa jaral hmm? maa la wax lii kay ndax kuy waaw boo ko xasee am di xaw ma lan waaye lu lamb dootoo ko am ci kàttanu yàlla hmm? maa la wax lii kay barke alxuraan sëñ moom a am de moom day ñi ko am moom te xam hmm. wax dëgg yàlla rëccuñ ko waaye ñi ko amagul nag xëy na bu yàlla dogalee ñu war ko am it danañ ko am waaye daal li alxuraan naan fa man saafalee man saafalee ko furi ku neex gëmal ku neex weddil waaye li ma la mën a waatal ci alxuraan yi ma la waxal yépp ku ci jëflante soxol dana sedd. Mhm. Mhm. ku ne bayre bi ña cat ndax da ngay am la. gis mu yàqule ci àdduna. Mhm. catu ko yàqal. yonent bi sallallahu alayhi na. sama xeet bi ginaa dogal bu yàlla. bu téeméer dee fanweer yëpp. cat leen rey. nee na cat su fekkoon am na lu mën a wóotu dogal suñu borom. cat lay doon. xam nga ne aaya ween yaakaadu la si ne kafaroo leeral naa ko ba tàyyi lay si loxo nekk baab saarim la maa sama sikra waqul innahu la man nenu waaw risikul alam xam ngeen lu taxoon mu xam na ko cat baaxul jamono yonti bi am na koo xam dafa sangoon daal di lëkkaayu bind bi rafet lool am ku am ku am ku géndaane la ilaha kii day bind bi ak rafet bind bi mel ni mosuma ko gis mu daal di paralysé ci sens barki alxuraan ñu daal di yenu jël yu jud yonti bi sallallahu alayhi mu daal di ñaan daa ne daa ki ko wax wax ci moom dara ñu woo ko ko mu ñaan ko galaxndiku mu us ko ndox mi mu daal di jóg cat am na ñoo xam ne boo yokkoon ab bâtiment wala nga peinture képp ñu ne bâtiment bi rafet na wallaay la seen bâtiment bi du barke alxuraan am na ñoo xam te boo doon tukki képp ñu ne say papier génn ñu ne diw di yëg na ko diw ñu naan ñu naan waxtaan naan mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem mhm. boo boo demee boo ñëwee boo moytut mën laa kaske nga ci nga hmm? lépp lu yàqu ci adduna cat ko yàqu bari na kooran doon président sax ba ci Ousmane Sonko sax cat yàqal ko barke alxuraan bari na koo xamante ni bii day ngoro nit ñu dem bañ may ko ko ca biir eh, yaa ñuy wax réception ak ya ca aju mhm. cat dugg leen ba sëy ba tas ci lu gaaw mbaa cat dugg leen ba sëy ba duñ duñ ca mën a am doom mm-hmm. waaw moo tax képp koo xam def nekk dangaa dangaa nekk ci adduna bi rek rawatina Sénégal boo mënee di nëbb say mbir tey ñaan lu ci wàllu cat moo moo gën bari na ku jàpp dañu ko liggéey sax fekk cat bu la jàppee nag li koy xamee mm-hmm. mooy da ngay tayal mm-hmm. mën tasaare sa alal mën na lay gàllankoor mën ngaa dëgmal mbir ba bëgg caa am ndam mu échec yooyu yëpp mandargay cat la waaye cat moom mhm. cangaay bi juróom-ñaari fan lay lay doon mhm. dañ koy sekk nig dég bu cat nekkee ci yow incha allahu rabbi dana dañ ba set wecc mhm. te dama la mën a waatal ci màggu suñu borom bu dee cat képp moo nekk ci boo amee cangaay bi incha allah da nga ko moom ba faw te nit it mënatu laa catu lu lekk xorom ba suukar mënatu laa catu ba jàpp la Mm-hmm. macha allah macha allah cat baaxul ndax ñuy faral di wax dañuy cat dalay topp ba sa biir bàmmeel te cat nag wax dëgg yàlla képp ku mu nekk yow rek war ngaa ñëw seet ki nga xamante ne mooy sëriñ Sakho juróom-ñaari fan lay jox sa ngaay mu seppi ku ne dëj mu set yow wecc macha allah ay ci sëñ bi mu jógee ci li nga xamante ne moo ci ñëw ci li nga xam mooy impuissance sexuelle. waaw impuissance sexuelle dafa bari te li koy joxee bari na am na ñoo xam ne ndoxum siti moo leen koy jox am na ñoo xamante ne bi hémorroïde moo leen ko jox ulcère moo leen ko jox am na ñoo xamante ne bi rab moo leen koy jox am na ñoo xamante ne bi tamit ay xeeti lekk yi ñuy lekk moo leen ko jox waaye li ëpp ci xale yu góor yi nag rab moo leen koy def ndax dama lay wax ne suñu borom sax secret yi muy def ci nit mu ngi koy denc ci diggante mbag yi ak oom yi dañuy moo tax góor bu amee di ans képp ku soxna am rek diggante mbag yi ak oom yi waroo koo gis maanaam ni nga gis ni la ni ngay gisee jigéen bëgg ko bëgg koo takk soxna wala leneen noonu la rab di gisee góor xelam na ci moom bu xasee jaxasoog moom mooy waral ñuy tële mhm. muy téye seen siddi yi mhm. wala mu leen di xabtal ci ñuy mballu di fooy seen awra yi mhm. bu yàggee sax seen siddi day bàyyi loolu rab moo koy def loolu nag su fekkente ne moom rab moo la ko teg ci bis bi lañ koy dindi impuissance sexuelle képp kum nekk ci yow moo xam rab moo xam hémorroïde moo xam jabet moo xam ulcère moo xam lu la ko mën a jox ci bis bi laa koy dindi te bu la neexee takkal borom fukki ak ñett ñëw fii ma jox li ma lay jox nga def ko li koy def maa la wax li waaw loolu moom mooy joni joni impuissance sexuelle moom mhm. amul ma dem te ñëw mhm. ci bis bi mhm. buñ ci déggantee ci bis bi sa sa aajo faju waaw bu fekkee mas naa jóg sa sàkkare benn yoon ci dund nga tàqal ak impuissance sexuelle mais bu mës sa jóg nag mënu ma ko faj képp ku ko judduwaale mënu ma ko faj hmm. macha allah boobu de mooy bu gaaw bi bu ñëwee ci li nga xam mooy ndoxu su teg hémorroïde waaw ndoxu siti moom xam nga ne bari na lu muy lu muy lu muy gàllankoor nit lool mooy ndey jàngoro ji te ñu bëri dañ koy sobantal ndoxu siti ba xasee nekk caw jàngoro ju ñëw day dugg moo tax ñu bëri xamuñ sax dëgg-dëgg ndoxu siti waaye ndoxu siti moom lu nu war di lu nu war di faju la nit ku ci nekk boo toogee boo toogee weer rek war ngaa naan ndoxu siti wala 15 jours gën gaa yàgg weer garabu ndox siti baa ngi nii képp koo xamante ne bi siti dafa nekk caw mi ngi nii traitement bi cinq butéel li ngay jël waaw bu fekkee site rek ne caw da nga tàqali koog moom ba faw faw faw faw faw faw te dootu la dalaat site nag baaxul bu nekkee ci nit mën nay dagg karawam karaw gi ruus mën na koy def ay picc mën nay xasan yaram bi léeg-léeg gis ñi nga xam te dañoo dañoo cere seen kanam yi loolu site da koy def site bu jàppee góor mën na koo téye ba du am ba du am doom ndox mi lay yàq bari na góor ñu sëy ay at mënuñu am doom site leen jàpp ndox mi lay yàq siti dana téye góor ba sàkkari si du dëgër siti dana téye jigéen ba ba ndaw si dootul mën a am doom billahi bari nañu ñaan la fu ne naan dañ maa raba ma jàpp ak fekk na dañ maa liggéey fekk ne sitee leen jàpp siti siti moom ndox day yàq sax yëfi góor bari na góor ñu sëy ay ateen mu ñoo am doom fekk sitee leen jàpp waaw waaye bi cinq bitéeli rek nga tàqali ko moom ak foo mën ne ci àdduna des fois ñi nga xam dañ naan dañoo xeesal ba seen yére cere ñu bëri dañ naan ndoxu siti moo loolu ndoxu siti moo koy def loolu siti moo koy def siti kay mooy def noonu xam ne sa sa sa kanam gi da ngay gis mu cere di am ay picc di xasan ngay wokkutu muy neex di gën a yokk loolu siti moo koy def bu jàppee nit sax du am karaw jigéen ñi gis seen bopp yi di xusu loolu siti moo koy def ak góor ñi nga xamante ne bi na ma yàlla baal dañuy gaaw gaaw a daanoog yu mel noonu loolu siti da koy waral hmm. moo tax siti moom ku ne war na ci jóg te siti moom séerul lu yomb la moo tax kenn ku ci nekk rek war nga ci jóg xanaa xamoon naa la xamal benn mbir garab googu su mu taxaw la ci solo mooy daat ba siti nag jàngoro yëpp siti mooy mooy mooy dàtt bi mooy ndey jàngoro ji bu mm-hmm. nekkee cew jàngoro ju ñëw day dugg waaye bu seetee bu seetee cew mm-hmm. jàngoro ju ñëwaat dootul dugg mm-hmm. waaw moo tax ku de war na ci jóg nag weer wu ne nga naan ko bu doon weer it 15 nga naan ko mënta doon waaw mm. ku ne sëti nag sëñ bi ne hémorroïde hémorroïde na ci réew mi ñu koy jàmbat bari na waaw de moom mi ngi nii moom it six butéel yi mooy nekk traitement bi juróom benn butéel yi mooy nekk traitement bi nga tàqali ko hémorroïde ba faw ba faw faw faw faw faw mhm. moo xam interne moo xam mhm. externe mhm. moo xam bi ne ci biir moo bi ne ci biti moo xam bi nga xamante ni bii dafa nekk ci biti di génn deret di xasan di la seere moo xam bi nga xam dafa nekk ci biir di wal ngelaw di la seere ba pare tëleloo la yooyu yëpp bu mu ci mën a nekk boo jëlee traitement bi da ngay tàqali ko moom ba faw faw faw mm-hmm. hémorroïde moom dañ la koy garanteel mm-hmm. dañ la koy garanteel foo mën a nekk ci àdduna buñu ci jëflantee sa ajo dana faj mm-hmm. moo xam interne moo xam externe xaw ma lan waaye hémorroïde dootoo ko jàmbat te keroog ngay faatu dootu la dal waaw ay am na solo sëñ bi buñu jógee ci hémorroïde ñëw ci la mooy wàllum papier waaw ah, papier moom wax naa papier moom wax naa ko waxate ko fi ba tàyyi ndaw ñi dañ leen di war a jàppale bu baax a baax képp koo xamante ni rek moo doon sa jafe-jafe bu ñu jëflante rek yàlla dana faj sa aajo mm-hmm. man nag dama laa jëlale ngay wax may wax waaye ku yàlla narta faj sa aajo doo jàkkaarloog sama jëm Mm-hmm. Mm-hmm. ayca am na solo macha allah ki ñu seet si tey muy Serigne Sakho alxuraan nekk fi nga xamante ni euh, mooy Arrêt Baye Fall nee naa la boo ñëwee mu seetal la euh, farorab tamit aussi mën na ko moo ci gaaw moo ci mën macha allah cororab tamit boo ñëwee ci moom macha allah impuissance sexuelle ah, li nga xamante ni mooy wàllum tële boo ñëwee ci moom ci kàttanu yàlla bi ngeen jógee dina la ko dindi ba mu set wecc comme ni mu ko waxee da koy sempi ba mu dañ ci yow ay noob ak yëpp papier ubbeeku kaaraange ay ci sëñ bi euh, du ñu dem ba ñëw ci yow te ñibbiwuñ te waxuñu li nga xam mooy wàllum làmb ndax ku ne xam na de euh, actuellement ni euh, Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ne mooy tafaatin bëre woon nañ bu yàggul dara tafa Balla Gaye am ndam ci kaw tafaatin mu war a nekkaat nag revanche boo xamante ne nii gis nañ ko rek signature contrat bi ñu def Balla Gaye numéro 2 ak tafaatin mais noo gisee ñaari xale waaw loolu de moom li ma ci mooy day doon day xaw xat ci man lool ndax da ci koo xam ne waajuram dama ko dénkoon waaw te alxuraan di wax ne woo foo bil adi inaada kaan mas'uula mhm. na ngeen di fonk kóllëre mhm. ndax kóllëre ëllëg yomil xayaam dañu koy laaj képp koo amlante rek seq moom teraanga mbaa lu baax mhm. bala ngaa jéggi siraat yàlla dana laaj nan ngeen ko seqoon te kóllëre wooy fut moo tax daal loola man moom bu ko jàpput sax fas naa ko yéene jàpp waaw moo taxit daal xaw naa xat ci man lool ci seen diggante. Mhm. waaw mhm. moom moom dana ko dégg. te comme ci àdduna la ñuy waxtaane mhm. dana ko dégg. te it kóllëre googu daal fas naa ko yéenee sàmm. waaw am na ci ko xam daal waajuram dénkoon na ma ko. waxoon ma ci ay wax. waaw léegi nag beneen ba ca des mooy. Uh-huh. ñoom ñaar moom yuuxu mën naa mën naa mën naa jëpp fu ko foogewut. Hmm? Hmm. naa waaw xam naa daal ku ci ëpp gàllaaj uh-huh. mën ngaa daan sa morom uh-huh. waaw. mais actuellement nii kan moo ci gën a jékku mystique Balla Gaye la wala Tapha la Balla Gaye kenn mel ci moom ci ci moom ci wàllu wàllu wàllu wàllu mystique. ci làmb. Hmm. Balla Gaye numéro 2. waaw Balla Gaye moom xaw ma mu ñàkk waaye macha allah ñaan bokk ci. Mm-hmm. am na ku baax a baax macha allah. Mm-hmm. te dafa am ñaanu nit nitu yàlla. Mm-hmm. Mm, xam nga ñaan daa bari façon. am na ñaan yoo xamante ne dangay dem rek ñu bind ay mbir. wala kii ay mbir jox la. boo ko ki nga xamante ne bi dafa toog di jaamu yàlla. nekkal boromam kennal boromam nekk ci. yor yàlla di ko liggéey ba mu bënn ci moom. kooku boo jàkkaloon a jëmmam sax. saaju day faju waxuma la nag mu tuf mu tufli la. waaw foofu la foofu la nit ñi gën a foofu la nit ñi wutee. am na ñaan yoo xam ba la neexee jël tur nga sangoo génn génn galaaj. Mhm. Mhm. Mhm. bu ñu bëri woon tey ñoom ñaar. waaw fii fi mu toll nii moom li ma la ci wax rek du ci bëgg di sori sax. ndax kooka moom xay na xay na xam na. ma xam. waaye Balla kay daal. xam naa ne am na ñaan. am na ñaan. ah sëñ wax ci loolu parce que am na loo ñu waxoon ci combat Sa bi Eumeu Sène. waaw am na loo jox nga ah, am ndam ci kaw Sa Thiès. waaw moom de moom moom de moom de moom li ma la ci wax rek man moom ñaara lu ma lay wax rek. bindal téere ndax ñu yàgg topp sama émission xam na ne sëñ bi du koy waxantu tey du ma làmbatu te lu may wax it day doon lu ma wóor loo xam ne xam naa ko baax a baax a baax waaye ñoom ñaar daal nan nan ku ci ëpp gàllaaj mën ngaa daan sa morom ba ma gis fii may waxee jamono yi may waxee nag waxtu wi temb Balla Gaye jekkogun ci wàllu gàllaaj Tapha tamit su fekkente ne bëgg na bëgg na bëgg naa jekku lépp loo xamante ni da koy sangoo ci wàllu gàllaaj da koy sangoo jant bu fenk waaw waaw waaye bu nga koy sangoo waxtu timis mhm. waaw bu jant bi xasee fenk daal mhm. maanaam 8 mhm. ba di ba 17 heures 18 heures lu mu ci sangoo na ko sangoo diggante boobu dafa daal su ma la déggee nag cumbukaay yi gën a safaan waaw waaw kay bu waaw kay te mbiram dafa nekk ci ak leer waaw fi Tapha Tine mbiram dafa nekk ci ak leer moo tax buy sangoo rek nay sangu diggante 8 ba dix ba dix huit heures jëm waaw jëm dix neuf heures maximum bu mu passé dix neuf heures. maanaam yi muy sangoo mu ko sangoo guddi. waaw waaw kay bu mu sangoo guddi. bu hmm, ko defee rek du baax ci moom. Hmm. mais côté sarax actuellement ni kan waaw ñoom ñaar ñëpp la war nag ndax dama laa jël la sax ñoom ñaar hmm. seen kii waaye nga toog rek adduna di la seetaan ñi ñëpp bët yëpp di la xool loolu boo mun gaalaat da ngay dee léegi bët yëpp bokkuñu yem parce que alxuraan am na bët yoon xam bu ñu la xooloon faaw sa jëmm nga am ci loo mhm. na laam yoo xam la tuddoon mhm. faaw sa jëmm nga am ci loo mhm. moo tax bu dee wàllu sarax wàllu ñaan moom ñoom ñëpp la war benn ba ca des mooy comme am na ci koo xam ne am nañu kóllëre ah maa ngi koy déglu rek waaw man daal maa ngi fi mais am na combat boo ko ñaanaloon ba mu demee. ah loolu ñàkk mënut a ñàkk <laughs> mënut a ñàkk. <laughs> waaw la ci Balla Gaye wala. loolu nag xam nga nag ab sëriñ day xam ne ab sëriñ. Euh. ab médecin sànkatu néew. Euh. kenn du ci nettali. waaye nag nit euh. moom boo déggee. dana xam da nga xam. waaye man daal lu ma seq ak nit mm. di ko nettali waaye nag comme dañuy leeral nii ci kaw rek mm. am na lu ma la ci mën a mm-hmm. Mm-hmm. waaye du mën a diw la mm-hmm. ndax ku ne xam nga sang kotu néew du nettali macha allah macha allah am na solo nu gisee réew mi réew mi jàmm rek gis ci gal gis ci ubbeeku gis ci xéewal jëm ah, ci kanam réew mi daal Sénégal ci kanam lu waay bëggati fi nga koy wutsee loolu maa la ko xamal képp koo dégg tamit mu naan la réew mi lee ci am boo ko ñemee ne ko xoo dëgg benn ba ci desit mooy sëriñ si ne ci tiktok bi ak internet bi naan diw dana faatu ak diw cata ko rey loolu nañ ko bàyyi ngir yàlla nañ ko bàyyi man damaa naqari lool ndax it sunu borom mooy dogal xudura mhm. ak iraada sunu borom rek ko am mhm. yàlla nag dana may ab jaam dana xamal ab jaam mhm. te mooy faalu li ma yurit lu ko soob lay def waaye nag maanaam nit dund ba faatu mhm. waxoo ci dara lu rafet lu dul lu ñaaw naan diw ko sacrifié ak mhm. diw moo ko def loolu dafa ñaaw waaw te xalaxal mawtu wal xayaat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala fee mhm. suñu borom dee la njëkk dund la njëkk bind ci ci ci ci ci dund gi waaye li ñu ci lépp mooy xool kan moo gën a rafet ay jëf kon nag nañu rafetalaat jëf xam ne lii yëfi mag la yëfi gone gone yi ci nekk te xamuñ ko nañ ko jàngi nañ ko jàngi bu baax a baax a baax jéem koo xam nit ki lépp lu muy def na na ci am fulla ba noppi nag xam ko na ci am fulla ba noppi xam ko loolu mooy dëgg waaye nekk dinaan lii dana am lii dana am teytu booba fenn fu ci ci ci ci loolu mën naa ñàkk mhm. ndax it xam gis koo xam ne am na juróom-ñetti fukkat wala juróom-ñeent fukkat nga yëg ne feebar na nga ne dana faatu mhm. loolu du xam-xam waaw ndax comme ndaw yi dee sax waxuma la ak mag ñi mhm. xam-xam lu ñu jàng la képp koo xam te ne xamoo ko seet fi mu toll nii li muy li muy li muy li muy doy waar doy seet ak li muy li muy yéeme yéeme fi mu toll nii weer képp mën nga ca jàng juróom-ñaari seet yëpp kon xam nga loolu jafewul commerce dong boo ko def mën def ay at boo doon jàng alxuraan da nga def ay at doo fer ijji mbaa nga mbaa mbaa mbaa nga mën a tari tari tari euh, euh, sabisima ba suuf man fukkaat ak ñett def naa ko ci daara kon xam nga ne kon seet wala ñaan jëfewul waaye nag kuy ñaan ku ne nanga nga dëgmal sa borom des tey sell tey góorgóorlu sa diggante yàlla sa kem kàttan da nga lépp looy jëflante ak nit it mu doon loo xamante ni na leer naññi ndax boo rawee fii doo raw fañ jëm waaw te it ñu bàyyi neef yi di yàqantey der ak waxante lu ñaaw ak naan diw dana faatu loolu daal neexuma mm-hmm. te lu ma naqari la mm-hmm. waaye nag kon daa nekk réew moo xam daana kenn moomul kenn mm-hmm. daal moo tax yi am rek di am waaye nag yii moom lu jaramoytu la waaw Euh, sëñ bi kontaan nañ ku ne xam na ne jot amul ndax boo xoolee nit ñi sax ñu ngi lay xaar waaye nag ñun moom euh, dañoo ñëw rek tënk la ndax euh, li may faral di wax rek yow boroom xam-xam nga jàmbaar nga ci wàllum seet waaye jàmbaar nga ci wàllum joxe garab ndax nee naa yow yaay seeta nit ba pare jox ko li nga xam mooy ay kaaraange moo xam ubbeeku cat ak yëpp jàmbaar nga ci ñu kontaan nañ xam naa ñuy dem ba benn bàyyi nga continuer li nga xam mooy sa liggéey ndax nit ñaa ngi lay foofu waaw maa ngi leen di sant bu baax te di leen nuyu di ñaan nag seen site bi yàlla na dem ba wër adduna bépp ndax it ay nit ñu baax ngeen yéen daal barke alxuraan maa ngi leen ciy ñaanal te xam ne nag man moom yàlla suturaal na ma du ma ñaan lu dul am lépp lu ma ñaanal nit ki yàlla dana ko def ca kaw ca kanam rek bu leen ti dara insha allah rabbi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu yàlla yàggal fi Cheikh Mamadou Mountakha aya dawla wa nasara yàggal fi sëñ Mbaye Sy Mansour yàggal fi mboolem xalif général yépp ba liñ naal ci lislaam yàlla dëbb leen kattan ñu def ko nu leen nu mu leen soobee kenn ku ne la nga nekk nañ ca góorgóorlu fex ko maîtriser waaw ngeen baal naq jërë ngeen def ay jërëjëf macha allah jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax sëñ Sakho alxuraan te ñu seet woon ko fi nga xamante ne mooy are Baye Fall muy borom xam di jàmbaar ci wàllum ñaan ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko kontaanee euh, numéro téléphone bi ko def ci bi ku ko war ci kàttanu yàlla boo dégganteeg moom dina la idée bi indi la ci biir kër gi ndax nee naa la kër ku dul defaru doo fi ñëw macha allah jàmbaar la ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax suñu borom saxal la fi ndax li may faral di wax rek borom xam-xam yu mel dañ leen a war a bàyyi ci réew mi ndax nee naa li day feebar yor feebaram goo xam ne day metti lool mu koy sooxaale wala mu koy woyaale bu ñëwee ci sëñ saaxu alxuraan rek macha allah bu dee wàllum kaaraange cat papier kayit épaisseur sexuel ku ne xam na ne fukki yoo jël euh, set ya dañoo néew kàttan wala neuf ya boo ñëwee ci moom vite fait da koy dindi na dëj kon nag yow dañu lay jaajëfal baax di la kontaane merci beaucoup Oustaz jërëjëf Sam laa ci àndaloon moo nekkoon ci caméra bi saa su nekk Aïssa tamit moo ne ci wet gi Aya moo ne ci micro te ñëw suñu saaxu alxuraan yaakaar naa moom it jàmbaara ci wàllum ñaan ko bu ñu ko waxee sànq rek jaajafal nañ ñëpp kontaan nañ ci ñëpp di wax ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf